bu ñu rafetlu la tey kenn wax président Macky ñàngal dañ naan président Macky nooyal parce que tey nooyal nga bu baax tey kenn wax opposition ñàngal ñuy wax opposition nooyal aussi tey tey li ñuy gis comportement président Idrissa Seck comportement Khalifa Sall ak comportement Mamour Diop Decroix ak ñeneen ku lim juum bu ñu waxee ba pare ngeen reeroo seen biir àqtaay seen biir je crois que loolu la sénégalais di xaar ci yéen xaaruñu si yéen xaaruñu si yéen ngeen jàppee seen bopp ay ennemis mais ay adversaires et image boobu militants yi ngeen am da ngeen leen ko war a inculquer de sort que militants yi itam bu ñu dajee da ñuy rayante ñuy saafanto parce que yéen acteurs politiques fu ñu leen gis rek yéen a ngi saafoon ko quel que soit vos divergences mais militants yi aussi war nañ ci inspiré wu euh, euh, citoyens yi inspiré wu ci que bu ñu dajee ñoom tamit ñu mun di saafantoo même bu fekkee bokkuñu gis-gis ci politique loolu dañ jàpp ne war ngeen ko inculquer également ndax tey boo demee ci kër yi kër tasaaroo na ndax bokkuñu gis-gis benn famille da ngay gis famille benn ñu noonoo parce que kii fii la ànd kii fee la ànd nga dem ci quartier yi noonu ba ci bureau yi man sama bureau léegi tere naa fa ko wax politique parce que dafay indi noonoo lu bari alors que politique war nañ mën a bone bokk fu ñuy xool di jongante ci xel ak ci xam-xam bañ a jongante ci doole ak reyante donc am ambiance bi fi am dafa may fàttali rek li Paul Barré di waxoon ci guerre mu ne guerre massacre là entre des gens qui, se, qui ne se connaissent pas au profit des gens ki se connaissent mais sa se pas donc citoyens yi loolu la war a gën a jiital jàpp ne nañu réeroo waaye war nañu yegg fenn fi ba taal suñu réew ba tax na président jàpp naa ne li gën a am solo mooy képp ku jug ñëw ci dialogue bi boo delloo doo ko rëccu ndax di nga fa am loo fa jële mais boo jógee ci dialogue dem jëlee woo fa benn résultat day indi ëllëgee boo tàggoo dialogue ñu ne la doo fa jële dara kon président responsabilité la historique ci yow que d'emblée nga jël ay gage xam la ne lépp lu juddoo ci dialogue bi te am consensus nekk na loo xam ne danga